alhamdulilah عبدي واغفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam waaye tamit di la nuyoo ci béréb boo xam ne baaxoon nañ leen fi nuyoo waaye muy daara alquran ju Serigne Mbacke Madina daara alquran Serigne Mbacke Madina lu tolloo ko ñaari weer ci ginnaaw tegoon nañu xeer wi waaye ni ngeen ko xamee rek bi ñu tegee xeer wi tamit ba léegi taxul ñu tegg suñu tànk benn yoon toujours ñu ngi ci liggéey bi di ko wéyal depuis booba ak léegi ñu ngi woon ci xeeti fondement yi waaye tamit ñu ngi woon ci mool yi waaye tamit ñu ngi woon ci ferraille ferrailleur bi ñu liggéey ci wàllu feer waaye tamit ñu ngi woon ci xeer yi ñu ngi woon ci suuf si gis ngeen ko tey ba yàlla dogal nag àgg nañ tey ci sëkk bâtiment bi njëkk fii ci daara alxuraani Serigne Mbacke Madina ni ngeen ko xamee nag daara ji dara taxawul taxul ñu taxawal ko lu dul sàkku ngërëmul sëriñ bi kenn ku nekk xam na ne sëriñ ma dina ak alquran dafa am cëru boppam bu mu ko joxoon te kenn ku ne xam na ne tamit cërub boppam boobu ginnaaw bi mu dëggoo fa yàlla dëggu fa sëriñ Touba ak waa këram ñun mbokki taalibe yi dañoo war a góorgóorlu tamit am pas-pas ci góorgóorlu fexe ba loolee ñu firndeel ko. loolu nag moo waral lii tey. gis ngeen ko nii mu demee bañ leen wootee ca woote bu rëy bi ñu defoon ku seetaan di nga ko gis ku déglu tamit di nga ko dégg waaye tamit noonu lañ doon doxee ba tey yàlla dogal ñu agsi fii nu agsi di sëkk bâtiment biñ fi njëkk a def ci lañ taxaw ni di waxtaan ak yéen waaye tamit ak li ci sunu ginnaaw nii mu nekk di mbaar mi mais xay ci lañ fas yéene ndongo yi di ci jànge ci lañ nekk nii moo taxoon nag sunu kàddu yu njëkk nan ko waxee rek la waxaat. nan xam ne danoo jug pour liggéeyal sëriñ Mbacke Madina ci alquran di ci sàkku ngërëmam Serigne Mbacke Madina nag li yaakaar képp koo xamante ne bi jiim naa wut ngërëmam ci alquran di nga ko am ndax ko woon nag moom xamewoon nañ ko ak moom waaye tamit lu man di doon pour mu àgg fi ñu ko bëggee wala ni ñu ko bëgg a dëggale nu dëggale ko nun taalibe yi mooy ñi nooy xam ji ma góorgóorlu ci loolu taxawal ko ndax tamit sëñ Alaaji Baara Mbacke yal na yàlla yokk leeram daa waxoon wax bu am solo mu ne yéene yi dëgg la lépp dëgg la waaye nag loo fi mën a gis nag dongo yee li fi gis ni yëpp dongo yee jumaa ji dongo yee kon tamit daara alxuraan ji dongo yee kon ñu ngi woo dongo yëpp fu taalibe Serigne Mbacké Madina nekk ci kaw suuf ci juróomi yi yi nekk ci àddina bi waaye tamit niñ ko gisee ci région bi ci région yi sous région bi ñëpp ñi nga xamante ni bii ñu ngi ci réew mi. biti réew ak fu ci nit man nekk rek ñu ngi lay woo ngir bëgg ñu ñëw wax dëgg yàlla nag ñi ngi ciy sant ndax gis nañ ne nit ñi jàpp nañ ci lool ndax liggéey ba xay amagul ñaari weer te yaakaar naa budget bi léegi mu dem ci ay millions yu takku liggéey bi yëpp di jaar ni mu war a jaar di doxee ni mu war a doxee ba tey jii waaye ni ngeen ko xamee rek yoon yi moom yoonu yoonu soññante la te tamit yoonu jëf la maam Cheikh Ibrahima Fall ñun ñëpp mooy suñu roy waay Baabul Muridina da doon wax ne jëf jël jëf jël kon nag dañoo bëgg ñun ñëpp ñu jëfal sëñ Mbàkke Madina ci alxuraan fas yéene daara ji àgg fas yéene ñu andi fi suñuy doom fas yéene ñu fi mokkale alxuraan di ko fi bindee lépp ñu jël ko def ko addee sëriñ Mbàkke Madina kon sëñ Abdoulahi loolu mooy li nga xamante bi loolu lañ bëggoon a laltaaye mbir mi ngir soññaane ngir ñun ñëpp ñu gën a taxawaat te xam ne loo fi mën a gis kër goo fi mën a gis bu ñemee kanam dongo yi ñoo ko jëmale kanam kon nag kër sëñ Mbacke Madina gii daaree sëriñ Mbacke Madina nun waa kër sëriñ Mbacke Madina nun soppee sëriñ Mbacke Madina nun ñee yaakaar sëriñ Mbacke Madina dañoo bëgg kenn ko nekk def sa kem kattan def nag ba def loo mënul sax nag ndax dégg naa sëriñ Touba radiyallahu taala anhu daana wax ne man de ku ma defal loo man ma defal loo mënut ku ma defut ku ma defal loo mënut ma fayal loola jomb kon nag loolu gëm nañ ne sëriñ Mbacke Madina ku ko defal loo man mu defal loo mënut ku ko defal loo mënut mu fayal loola jomb kon nag yi gën a góorgóorlu ci njàmbaar gi gën a defaat sunu kem kattan ngir liggéey bi gën a jëm ci kanam nañ ko xamee nag liggéey bi moom lu coolee bari bari bari ginnaaw ñaq wi ak xalaat yi ay koppar la kon nag ñu bàyyi xel bu baax ci koppar yooyu te xam ne ñi ko dénk ñu koy saytu du ñàkk ku mel ni sëñ bay Samb mi ngi nii sama wet mu mu tënk tuuti rek pour leeral leen ci li jot a jaar ci ci ci ci tënkit bu gàtt ndax tamit liggéey bi fi ne ci lañ bëgg a demaat noo ci waar wi nii te incha allah fas ñu yéene bàyyi mukk liggéey boobu def nañ ko defin boo xamante ni bii sax kawee na njort nag ndax bi ko xelaatee fii ni mujj sottee sax gëmuñu woon sax ne loolu war na ne mën a sottee waaye Serigne Mbacke Madina mooy koo xamante ne bii loo ko defal lu nekk rek muy lu baax ca kanam la jëm waaye du jëm ci ginnaaw mukk woo nañu ci wàllu bâtiment képp ku ca aju nga xamante ne bii moo xam mooy maçon ba malheur ba mënu sa coffrage sa Euh, euh, bois ak mini ak menuisier métallique ak euh, ferrailleur ak ñi nga xamante ne bii ñooy yëngutu ci wàllu électricien ba ci ba ci ñiy palafane sax woo nañ leen ak peinturekat yi ak carrelage yi woo nañ leen ba ñëw ba bokk toog waxtaan biñ bokkee toogee waxtaan tamit ñoom ñooñ tey jii ku ne corps de métier bu nekk ku ne am na te loolu yàgg naa am ci kër sëñ bi waaye nii mu demee nii moom mi ngi ne door demee nga ne bi kenn ku nekk métier yooyu yëpp ma la wax ku ci ne am na ku ko jiite di coordonné ñi nga àndal ngir saa bu ñu la soxlaa te loolu moo war a liggéey bi gaaw a àgg fii mu àgg nii ndax tamit néew na loolu ñu daa defee liggéey nii xaalis bi daana fi nekk positif bi daana fi nekk mais organisation bi ñuy doxee ci wàllu kër sëñ bi tey tax na liggéey bi àgg fi kon kooku moom alhamdulilah ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax am nañ ci satisfaction boo xam ne ñun ñi ko def sax bett nañu asalaamaaleykum wa rahmatullah Euh, fédération Islaahu Daarayni yu kër Serigne Mbacke Madina ak mboolem daayira Serigne Mbacke Madina ci biir réew mi ak bitim réew yëpp ak taalibe Serigne Mbacke Madina yëpp ak mbooleem jullit yëpp soppee alxuraan yëpp. ñu ngi nuyu ñëpp di siyaari ñëpp di sof suñu kàddu rek fii sëñ seeni Sarr Baye xéewal daane la léegi ci wàllu daara alxuraan ji nga xam ne ñu ngi ko fas yéenee taxawal fii ci Mbadiane euh, fas yéenee topp bëggu sëriñ Mbacke Madina. di leen xamal ne nag kenn ku ci ne fépp fu ci waay mën a nekk rek ni ñu ko waxee woon kere bi ñuy teg xeer wi ak numéro compte yi nga xam ne doon nañ ko joxe ak it téléphone yi wax dëgg yàlla lu ci ñu ci bëree bëri fu mel ni Italie ak Espagne ak France Gabon Afrique di Sud Gambie Mali Sénégal fenn fu ci ne nit ak ñu fay woo di am loo xam ne yaa ngi koy envoyé ci numéro compte yi di ko dugal ci banque yi ñuy dem di ko retiré lépp rek ñu di ko defaat ci liggéey bi. kon ñu ngi ciy bàyyiloo xel ñëpp nag rawatina ñi nga xam ne ñoom lañ bokkat Serigne Mbacke Madina te xam ne daara ji buñ ko defalee mën nañ ne daara Serigne Mbacke wala suñ bopp rek lañ koy defal ndax barabu alquran la eh, li ñu am yéene def ko ci mooy gone yi nekk fi di fi jàngal di mokkal di bind di fi jëlee xam-xam yu mucc ayib kon nag ñu ngi ciy bàyyiloo xel ñëpp te xam ne kenn ku ci ne daal na nga jàpp ne la nga ciy def mooy tax daara jee yegg kon kenn ku ci ne nag nang ci def ba def ci loo munut ni ko sëñ seeni saar waxee léegi ndax ku ko defal loo man mu defal la loo ko defal loo munut mu fayal la jomb auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahimi alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa moolana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min barkeb sëriñ Mbakke Madina sunu sëriñ bokki jullit yi bokki taalibe yi yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu te dañuy seetaan fii ci daaray alxuraan mbakki Mbakke Madina fii ci Mbadiane ci Touba Mbadianeen ñu ngi nuyu ñëpp tey jii nag yàlla dafa def ñu xëy si fi ngir sëkk bi ak ci mbaar mi lenn loo xam ne amoon na luñ ca war a mottali ngir mën koo sëkk. Eh, wax dëgg yàlla ni ñu ko wootee nit ñi wuysee nañu wuyseen woo xam ne yéeme na lool eh, xam nañ ne ki koy defal adresse am bi ko yàlla defal mooy bu ñu nee Serigne mbakki mën na xel yëpp dem ci alxuraan nit ñi firndeel nañ ko ndax ni ma koy faral di wax ne alxuraan ku ne xam ne yàllaa ko moom waaye bu ñu koy adressé ci jëmm takkoogu mu takkoo moom moo tax moo tax bu ñu nee Serigne Mbacké mën nañ ñëpp ne borom alxuraan. Eh, béréb bii ñu koy defal nag fédération Islaahu Daarayni daay Sëriñ Mbàkke mën ni ñi nga xam ne ñoo ne ci Touba ànd koo bokki taalibe bi yëpp rek ñoom dañuy ñi nga xam ne ñoo ko sos waaye mbooleem koy wax ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rek eh, woo nañ la ci ndax eh, mbir faw am ñu ko sos yàlla moo def ñun ñu sos ko fédération bi sos ko bu bu waaye ñoo jullit yëpp lañ ko bokkal ndax sëñ Mbàkke mën na jullit yëpp la fi newoon jullit yëpp la ne la fi newoon eh, foo ko mos a tudd ñëpp ne askay eh, maa ngi dégg rek bu yàggut seere soo xam ne eh, maa ngi koy dégle ci ku ñuy wax sëñ Abdoulaye jóob bisiri mu koy wax ci loo xam ne sëñ Mansour si moom baa bëgg si seere na ko ci sëñ Mbacke mën na ndax nekk bi ñu bokkee nekk xombal mu ne mu yéem mu yéem ci lool ci jëmmam jooju ne mu a gis ko ragal yàlla na moom. kooku nag ku koy liggéeyal war ngaa sant yàlla te ku koy liggéeyal nag ci lim mu gënoon a bëgg muy alxuraan nga xam ne waxtu woo mosaa woo mosaa dem moom dañuy wax ne bu xëyee waaye waxtu wu nekk rek bay boo nga ne waxtu wu ne waxtu wu ne ma ngay ci alxuraan amul su amul amul amul suba amul ngoon kon nag bu yàlla defee tey maanaam ñu di ko liggéeyal daara jii nga xam ne benn liggéey bu ko féete kaw yaakaar nañ ne amut ñu yaakaar ne eh, nii ñu ko tàmbalee sunu borom dana ñu defal taw féexe ñu eggalee na ko ñun ñi ko sos ñëpp ak ñi am def ci eh, sunu borom may nunu eggale ko ñëpp teewaat ko nii ñu ko ànde di ko liggéeyale sëriñ bi ñoo ngi ñaan nag ci barkeb sëñ Mbàkke mën a suñu sëriñ eh, nii nga xam ne la fi mbooloo mi teewee eh, ah, képp koo xam ne maanaam sa dara tabbi na ci rek moo xam da jëf moo moo da ngaa yëkkat saal def ci wala nga yëkkat saw ñaq wala nga am yéene ndax dana am ñoo xam danañ mën a def danañ bëgg a def te duñ mën def am ñoo xam danañ bëgg a ñëw te duñ mën a ñëw waaye loolu lépp ñoo mbooloo mi ñu fi nekk ñun ñëpp ñoo ngi ñaan suñu borom tabaraka taala nii ñu fi teew ñun ñëpp lépp suñu borom nangul suñu liggéey te boole ko mbooleem koo xam ne am na am na yéene jëf ci noo ngi sant nag ñëpp rek ñii fi teew ñoo ngi leen di sant bu baax a baax ndax liggéey bi kan moom bett na ñëpp ndax man kat yaakaaroon naa ne lii moom ba ba ba moom bâtiment bii dafa woon naa ne rek ba ba duñ ko mën a sëkk ci benn bis te fii na sëkk nañ ko ci benn bis ma matu ma avant avant midi jot. ba tàmbale ba tàmbale ci mba ba jàll ci mbaar ma kon nag ñoo ngi sant ñëpp ñu ñaan ci barke sëñ Mbacke mën na suñu borom nangul suñu liggéey te ñuy soññaan nag ñëpp nag nañ ñu ngi soññaan ñëpp képp ku defoon na nga defaat ndax daara ji liggéeyam du taxaw ndax bu eggeet lay lay yor daara ja moo tax kenn ku ne def sam xel ne daara ji mu waxtu wu nekk ku ne da war def noo ngi nag sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom tabaaraka taala mu nangul suñu liggéey ci barkeb suñu sëriñ sëriñ Mbàkke mën na wasalaamaaleykum wa rahmatullah

الدنيا على محمد واخر رمضان